Mamadou Mballo Mané maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu tamit di la sant. voilà euh, nga nekk euh, membre ci mouvement Sénégal notre priorité ñu lay laaj kuréel gi euh, kañ ngeen ko taxawal ak lan moo waral mbir mi. ok kuréel bi d' abord il faut que ñu préciser ni dafa commencé d' abord en deux mille dix huit par des jeunes sénégalais yi nga xamante dañu jàpp ni ñoom dañu subir benn injustice. si wàllu seen euh, vote ñu bëgg a voter mais ñu bind seen carte yi ay euh, non inscrits dans les listes électorales mouvement noonu la noonu lañ ko créé noonu noonu la groupe bi créé euh, noonu la amee benn groupe sénégalais yu taxaw pour jéem a défendre injustice boobu noonu ba deux mille vingt deux nag si lañ ko transformé en mou mu doon mouvement Sénégal notre priorité mu nekk mouvement boo xamante ne ay doomu sénégalais ñoo fa nekk ñi nga xamante ne vraiment ñoom yoon moom moo leen tax a jóg ñi nga xamante ne déjà défendre par exemple euh, liberté civile liberté sénégalais jéem a xeex pour bon gouvernance jéem a pour en tout cas justice yoon mu nekk loo xamante ne lu dëggu la ci biir ci euh, biir Sénégal donc ci liggéey boobu nag dañ ci collaborer ak yeneen organisation yi nga xamante ne comme ay Amnesty International ñi nga xamante ne ñoom tamit dañuy yëngu par exemple ci genre défendre ay droits ay droit politique wala ay droit civil ci euh, citoyen donc ñun ci taxawaay boobu noonu lañ nekk jéem a nekk benn genre intermédiaire entre ñi ñuy jiite ak ñi nga xamante ne daal ñoom population bi ñi ne ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci Sénégal la nekk rek surtout boo xamante ne bu ñoon rek ñun vraiment euh, ak suñu mouvement bi ak suñu règlement intérieur suñu statut pour ñun war nañ mën a taxaw ñu dimbale sénégalais boobu noonu. Euh, tey ji naka nga gisee phénomène émigration euh, irrégulière bi nga xam ni ba léegi mi ngi persister malgré ñi si faatu sensibilisation yi ñu si def bi si mujjee am ab pirogue boo xam ni dañu ko fekk ca Mamel am ñoo xam ni euh, faatu nañ bu yàgg mu nekk lu doy waar naka nga gisee phénomène bi en tant que jeune. vraiment doy na waar trop te ñu koy naxarlu moo tax d'abord may présenter sama condoléance xamante ne vraiment ñom ñoo ñàkk seen doom di présenté di ñaan yàlla xaare leen àjjana di présenté aussi sama condoléance euh, sénégalais yëpp parce que ñun ñëpp ko bokk ay doomu réew mi lañ donc vraiment may delluwaat bu wax bi si ñu ngi koy naxarlu parce que bu ñu sañoon wax dëgg yàlla euh, ku bëgg a tukki nga tukki mais na nga ko jaaree par exemple si yoon boo xamante ne dafa wóor maintenant mais situation bi nag pour man dañu war a situé d' abord euh, responsabilité yi war nañ mën a xam donc jeunes yi nga xamante ne ñu ngi dem parce que gis nañ ne ki am na ñoo xamante ne du rek ay chômeur lañu mais ñu ngi liggéey lan moo leen di pousser ñu dem même bu doon ñoom tamit xam nañ li nga xamante ne euh, moom mooy risques yi nga xamante ne mën na leen ci jëlee mais n'empêche malgré risques yooyu noonu yëpp dañuy pare pour sacrifier pour sacrifier seen vie ñu dem war nañ mun a dem waxtaan ak société bi jéem a ak ak jeunes yi jéem a xam naka la ñuy dundee seen kër mais aussi naka naka naka la ñuy dundee ci biir ci biir ci biir communauté bi yan façon pression la ñuy jànkonteel dama leen di taxa euh, ba muy tax ñu bëgg a jël risques yi nii buñ ce qui veut dire que donc communication bi war nañ ko xoolaat encore ban façon communication la ñuy def ban façon sensibilisation la ñuy def foofu noonu nag la ñuy woowee responsabilité état bi nga xamante ne moom d' abord war na mun a évaluer politique yi nga xamante ne def na ko des années bu ngi koy dégg mu koy def par exemple ci mbënd mi euh, ci kii bi kay ci immigration bi mais taxul affaire bi mu ngi continuer donc dem war nañ mun a taxawaat ñu def benn jàngat li nga xamante ne def nañ ko lépp ci politique lan moo si marché lan moom moo si marché wul ñu xool li nga xamante ne marché wul ñu jéem ko jooyanti ba vraiment mun a xam lan mooy poussé gars yi ak lan lañ mën a def encore pour changer par exemple perception bi nga xamante ne moom la jeunes yi am pour euh, perception bi nga xamante ne moom la jeunes yi am dañuy bëgg parce que ku nekk si situation boobu noonu nga xam ko foog nga xam ni fi li ko li nga xamante ne moom mooy tax bu dem moo gën a xool li li nga xamante ne loolu la fi gis donc loolu la ñu war a fexe ba mu changé ci boppu sénégalais ñu gis li nga xamante ne moom mooy tax ñu toog donc loolu noonu benn liggéey la boo xamante ne popula euh, ah, kii bi tamit nguur gi war nañ ko mën a taxawal te loolu pour mu jàll war nañ mën a def non seulement bon en dehors de infrastructure mais tamit mu doon benn communication benn sensibilisation bu franche. Mhm. ñu gis ni am na ñenn ci société civile bi li ñu bëgg mooy ñu jëlee fi base militaire française yi est-ce que yéen euh, d'accord ngeen si waaw wala déet. waaw ñun loolu d'accord nañ ci te wane nañ ko parce que bokk nañ ci plateforme boobu noonu <coughs> ci plateforme boobu noonu parce que non seulement moo jëloon nañ ci position te gis nañ ni nguur bi tamit jëloon na ci position defoon na ko sax campagne euh, promesse de campagne mais pour le moment puisque bon yàggaguñu fii nii te gis nañ ni ci amuñu tamit euh, majorité ci assemblée bi parce que ñoom dañ jàpp ne que foog ñu am majorité assemblée pour ñu mun a doxal exactement euh, programme bi nga xamante ne moom la ñu jaay sénégalais yi moo tax dëgg la ñun mettre ñu leen pression mais ñu ngi leen di artu ñu ngi leen di artu ni ci carrément ñun bëgg nañu daal armée base armée française yi mu jógee Sénégal parce que ñu ñun comme pour la souveraineté maanaam dëkk bi nga xamante ne day moom boppam te loolu ñun dañ ko yàgg dégg nii rek ci wax rek mais vraiment boo xoolee ci jëf ak li nga xamante ne moom moo am da ngay gis ni ki Sénégal ba léegi moomul boppam donc pour loolu mu mën a am jàpp nañ ni ki bokk na ci plusieurs points la mooy bokk na ci yoo xamante ne daal base militaire armée yi nii na fi jógee te loolu ñun vraiment ànd nañ ak ñun te ñu ngi ci plateforme yi dinañ continuer ci ko vraiment vraiment ñu ni ki pare ñu bu boobaa nag dinañ am beneen taxawaay boo xamante mhm. euh, pour victime yu violence yi nga xam ni moo fi amoon euh, ci deux mille vingt et jàpp deux mille vingt quatre euh, tey jii yéen nag ngeen gisee loolu am na ñu si faatu ñu baree bari am na ñu si jëlee ay blessures yu doy waar séquelles yu leen topp am ba léegi ñuy réclamer justice malgré la loi d'amnistie lan moo si position mouvement Sénégal ñoo notre priorité priorité. demande boobu noonu je pense euh, demande sociale la te ñun pour ñun dafa war a am justice dafa war a am d' ailleurs euh, voilà ñun en tout cas nous sommes euh, ñun ñu ngi seen wet ñu ngi leen di jàppale nañ def lépp li nga xamante ne mën nañ ko pour que justice boobu noonu mu taxaw comme wax loolu dafa bokk ci suñu principe taxaw benn sénégalais bi nga xam ne gis nañ ñu ngi subir injustice mais là pour man première mesure bi nga xamante ne ñoom war nañ ko def xool victime bi nga xamante ne vraiment. ñu ngi dund tey vraiment seen situation critique na de façon urgente ñooñu ñu xool ñu leen di jàppale nu mu gën a gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw léegi nag ñeneen ñi nga xamante ne peut-être seen alal moo ci yàqu wala tamit nekkuñu si yeneen situation yi ñooñu pour man nguur gi dafa war a woote benn waxtaan boo xamante ne da ciy boole surtout ci bi boole ci ñooñu ñooñu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñooy ay victimes wala ci tamit en tout cas yeneen acteurs yi nga xamante ne jàpp nañ ni kii dafa gën a bokk ci seen seen waxtaan yi moo moo moo moo kilifa diine yëpp ñu jéem a xool daal ensemble pour ñun bu waxtaanee foofu mën nañ ko trouver euh, meilleur moyen bi nga xamante ne moom lañ mën a jaar foofu lañ mën a jaar pour vraiment ñu def euh, ñu ñu ñu Euh, ñu jëm si ay élections législatives anticipées. Euh, ci mhm. jamono gi nga xamante ni situation wu réew mi ci wàllum koom-koom. Euh, métti mhm. na trop naka nga ko gisee est-ce que jàpp nga ni priorité la wala. waaw léegi euh, balaa may ñëw ci tontu boobu faaw ñu xam d'abord élection législative bi ñi nga xamante ne euh, ñoom ñoo bëgg mu am lan moo tax par exemple euh, ñoom ñu jugé nécessaire ni ki dafa war a am même bu doon situation yi nga wax ni yëpp ki dëgg la parce que le 24 mars sénégalais yi dañu votel pour président Bassirou Diomaye fay mu nekk vraiment ay période yoo xamante ne mun nañ ne dina dugg par exemple ci histoire politique Sénégal ndax Euh, élection yi si anam yi mu amee te ñu gis ni ki alternance saa yu amee rek dafay am yakaar bi nga xamante ne dafay judd te alternance bi nag vraiment yaakaar yi nag wutee na sax ak yeneen yaakaar yi parce que système bi nga xamante ne gars jàpp nañ ni ki yàgg na fi te moom moo teree Sénégal mu Sénégal mu développé système boobu noonu lañ fi génnee léegi nag loolu moo tax vraiment sénégalais jàpp nañ ni ki ñoom seen ajo dina paju ci côté yu bëree bëree bëree bëri bëri déjà démocratie dina amaat euh, aleelu askan wi dinañ ko gérer ni ñu ko war a gérer dégg euh, kii bi euh, manque de kii kii bi discrimination bi nga xamante ne tamit ñu ngi koy noté bu baax discrimination territoriale yi benn côté rek moom moo développé yeneen côté yi développé wu chômage bi nga xamante ne bëri na xale yi newuñu di liggéey Euh, koom-koomu réew mi nga xamante ne chaque année vraiment mu ngi dellu ginnaaw lu ëpp ci koom-koom bi dafay génn donc mu nekk loo xamante ne gis nañ ni ki daf yàgg te système bi nu mu tëddee moo tax par exemple ñu continuer di dund loolu noonu donc ñoom bi fi système bi génnee am nañ benn yaakaar bi nga xamante ne jàpp nañ ni ki loolu yëpp dina dina kii loolu yëpp par exemple dina fi dañ léegi nag président nag moom nag moom tamit mu jàpp ni ki programme moom boobu nga xamante ne moom la jaay euh, Sénégalais yi pour mu mun ko doxal bu baax am na ci yoo xamante ne foog mu jaar assemblée nationale ñu gis ne ci assemblée nationale yenn yenn mbir yi nga xamante ne muy loi yi nga xamante ne président bëgg na ko jaaral foofu noonu parce que jàpp na ni ki digg euh, kii la woon ay ay ay promesse la woon yi nga xamante ne defoon na ko sénégalais yi ba sénégalais yi ñu votel ko mais ñu gis ni ki ak député yi nga xamante ne daal ñoom ñoo nekk foofu te mun te mu nekk député yoo xamante ne majorité bi ci ancien régime bi lañ bokk député yi ñu ko Euh, loi yooyu noonu ñu jàll pour moom mu mën a doxal programme am donc léegi sur le coup moom day jàpp ni ki donc man nii ñii mënuñu dem te man am na loo xamante ne jaay naa ko Sénégalais yi pour mu jàll pour ma doxal ko dafa war a jàll assemblée nationale. donc li ngay wax noonu yëpp moom jàpp na ne ki pour mu réglé ko mooy question dëkk bi ni mu méttee yooyu noonu yëpp pour mu régler ko il va falloir que mu am benn majorité ci biir assemblée nationale bi de comme assemblée nationale bi matal na seen ñaari at loi may na ko. mu tas ko moo tax léegi moom mu tas ko pour mu mën a dem ay élection yaakaar ni bu amee majorité dina permettre mu mu mun a doxal programme yi nga xamante ne moom la jaay sénégalais programme yi nga xamante ne vraiment bu ko doxalee situation yi nga xamante ne yooyu la ñuy euh, yooyu lañ nekk di dund yëpp dina saafaraw donc loolu moom moo nekk contexte bi nga xamante ne nga xamante ne ñoo bëgg élection yi foofu lañ sukkandikoo ñu tas ko léegi nag joxaat nañ ñu askan euh, kii bi voix joxaat nañ ñun suñu possibilité ñu tànn ñan ñoo war a dem assemblée nationale pour vraiment permettre président mu mun a doxal programme bi nga xamante ne moom la euh, moom la ñu jaay ñun tamit suñu position si loolu dañuy gis ni ki par exemple yoon la bu amoon benn régime bi nga xamante ne mu ngi fii nii mu dem ba régime boobu noonu sénégalais voté génnee si régime boobu noonu biñ ko fi génnee nag mu mais moom la majorité wu nekk assemblée nationale ñun dañuy jàpp ni ki assemblée nationale bi méngoowul ak bëgg-bëgg sénégalais yi donc pour ñun day baax tamit ñu tasaat ko bu boobaa nag sénégalais seen bopp ñun ñuy juger ndax vraiment même bu doon bëgg nañu jox opposition euh, majorité yan opposition lañ koy jox bu doon tamit pare nañ pour jox président euh, président de la république kii euh, majorité mu mën a doxal programme moom loolu tam ñun ñoo koy jugé pour man lu baax la ñu tas ko bu jotee ñu mën a demaat encore ci élection ñun ñu ñun ñu jéem a xool askan wi jéem a xool léegi ban façon assemblée nationale la bëgg. dernière question ñu laaj la si euh, reddition des comptes lancé nañ ko nga gis nguur gi teg na euh, kuréel euh, goo xam ni am na ñaar fukki magistrat ak juróom-ñaar pôle judiciaire et financier naka nga gisee mbir moomu le waaw pôle judiciaire financier bi ñun dañ koy rafetlu déjà parce que reddition des comptes bi comme ni ma la ko waxee demande sociale la ñun ñëpp a ko bëggoon bëgg nañ xam exactement ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi newoon aleel yi nga xamante ne yàggoon nañ ko dégg chaque jour ay milliards ci lii ay milliards ci laa ay milliards ci lii programme bi ñëw na budget bi nii la toll yooyu yëpp vraiment ñoom ñu fi jógee yoon la ñu mën a def reddition des comptes ñu xam xaalis yooyu noonu yëpp fan la dugg ñun waxaguñu ñoom ñoo jël wala jëluñu voilà mais day baax ñu def réduction des comptes ñu xam naka la ñu doxalee euh, xaalis boobu noonu naka lañu ko gérer ñoom yow réduction des comptes boobu noonu vraiment euh, dañ koy rafetlu tey ñun gis nañ sax sénégalais yi yàkkamti bi nga xamante ne euh, noté woon nañ ko si le fait que voilà ñu tegal ñu teg ñu teg pôle boobu noonu soog sénégalais commencé woon nañ critiquer parce que affaire bi dafa yéex ñu ngi naan dafa yéex dañ ko war a teg donc buñ ko tegee du doon euh, lenn lu dul di ko rafetlu rek parce que jàpp nañ ni ki lu war a am la te ñii tamit ñi fiy jógee tamit voilà buñ fi jógee tamit ñu mun leen tamit euh, pool boobu noonu mun am possibilité tamit mu mu mu mu kii leen mu mu seetu li nga xamante ne loolu lañ fi def donc loolu dafa baax par exemple ci euh, réew pour vraiment ñu mun a assurer une bonne gouvernance euh, des deniers publics. merci beaucoup Mamadou Mballo Mané ci tontu bi nga xam ni tontu nga ko suñuy laaj. merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal. may fàttali ni Mamadou Mballo Mané yaa ngi bokk ci mouvement Sénégal notre priorité jërëjëf. merci beaucoup.